avec certaines takk der mm-hmm. da doon collaborer ak ñoom alors donc euh, ña ngay collaborer après ñëw war a mën a enquête ci yow day compliqué mm-hmm. donc euh, euh, heureusement que bale bi jaar na fa mm-hmm. te it il a été cité je ne dis pas qu'il est coupable ou non mais il a été cité plusieurs fois ci affaire Fulbert Sambou ak Didier Badji alors dëgg la ku c'est c'est c'est une personnalité très polémique. en euh, à certain moment donné on a beaucoup parlé de lui parce que sniper rek bu ñu la ko tuddee. waaye ak ak ak ak ak yeneen. Mhm. amoon na fi euh, numéro 9 ba bul fàtte sur l'autoroute à péage. donc kon euh, ki nga xamante ne moom dem na ba l'opinion wala même sax ñi doon collaborer ak moom. Mhm. t'appelle sniper Abdou Khadre sniper quoi. sniper on n'est pas en guerre là. waay bul fàtte. riwaanal kese bi tuuti mais moom la ñu loolu surnom la rek. oui oui oui oui oui euh, jili dañ lay surnommé ah. waay waaw. Euh, Cheikh Oumar Oumar moom euh, voilà. am na xadar waaye mhm. kenn da c'est-à-dire sur surnom tamit am na lu muy firndeel quoi mais bon bref. man sama bés benn la leen tu vois. boo bëgg de dama ko bëggoon ne bi mu déggee répandant damaa jooy de. waaw ñaanal ko. donc euh, surnom yooyu am na lu muy euh, révélé. <laughs> mais bon euh, jàpp naa ne it son arrestation si man li ma ci importé. c'est moins sa condamnation que la révé les révélations de l'enquête. Mm-hmm. jàpp naa ne c'est une mine d'information. moom moom moom moom sniper. Mhm. et eh, ak lu mënti xew. Mhm. ak lu mënti xew il ne va pas tomber seul ak lu mënti xew il ne va pas tomber seul. moom kese suy daanu. Mhm. du dem moom kese déedéet. donc euh, enquête là ci loxo yoon la nekk. je ne suis pas dans l' enquête je ne suis pas dans le secret des dieux. Euh, je parle que si sama xalaat. jàpp naa ne euh, na ko na ko Sénégalais yi bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mm-hmm. mën na élucider beaucoup de choses yoo xamante ne mi ngi woon suñu kanam suñu ginnaaw. Mm-hmm. bëri ay questionnement donc ce qui m'importe c'est moins une future condamnation pour lui. Mm-hmm. mais plutôt renseignement yi nga xamante ne mën na jóge ci moom. d'accord. alors jot nañ benn information euh, selon Ngoné Saliou mu ne euh, Lat Diop a été placé en garde à vue euh, gannaaw audition bi nga xam ni amoon na depuis ce matin ba léegi 10 heures la ñu ko convoqué woon euh, division des investigations criminelles placé nañ ko en garde à vue ci ñaari dossiers itam njort na ni ci loolu lañ ko doon laaj mu di gestion bi nga xam ni amoon na ko ca loterie sénégalaise waaye itam ak mbirum ki nga xam ni moo di sniper moom lañ doon waxtaane alors Pape Moussa ci yow commencé en tant que. présomption de bonne foi. pour euh, Ngoné Saliou ah. li mu wax dama koy gën. dama koy gëm. jusqu'à preuve du contraire. parce que je connais son engagement aussi pour informer les Sénégalais moomu. Mm. Euh, bref euh, xam nga li laa doon wax la jot fi ministre. Mm-hmm. te gars dañ naa woy ministre haute cour de justice. lañ koy kiiwee il faut faire attention. ministre dans l'exercice de ses fonctions Fonction. ici on parle de l'exercice de la fonction de directeur général ak beneen dossier ça n'a rien à voir avec euh, sa qualité de ministre donc juridiction yii mën nañ ko juger dans cette affaire la mm-hmm. alors léegi nag convoqué nañ ko laaj nañ ko euh, garde à vue il est toujours présumé innocent jusqu'à ce que nag après euh, ñu jox dossier bi procureur mu xool ndax effectivement il a assez de preuves pour poursuivre parce que c'est lui qui a l'opportunité de poursuite bu dee jaral na ko poursuite il va prendre euh, benn réquisitoire saisir le juge d'instruction su dee jàpp na ne deful dara il va classer sans suite d'accord juge d'instruction tamit enquête enquête bu jàppee ne am na suffisamment de charge il saisit euh, la juridiction de jugement par une ordonnance de renvoi mm-hmm. mais fi ñu toll nii nekkaguñu ci station boobu noonu laaj Diop aussi bien à garde à vue est toujours présumé innocent. d'accord garde à vue ñaata temps lay mën a jël. oui le, euh, le principe bi la Cheikh Omar wax ni léegi 48 heures renouvelable une seule fois combien de fois une seule, une seule fois. fois 48 heures renouvelable une seule fois. ci biir garde à vue aussi euh, je, je pense que ses avocats étaient là-bas ah. oui maître voilà. Diouf. règlement article 5 que ni képp ku ñu interpellé. Mhm. sa avocat dafa war a ñëw bu lu ko mooy. bu avocat ñëwul ci euh, commissariat police wala gendarmerie. Mhm. boo demee ba ci biir mën nañ annuler tout la procédure l'affaire Thione Seck ana une jurisprudence parfaite maanaam mën nga dem ba ci biir mhm. ci biir dossier bi mhm. vice de forme am vice de forme ñu màbbal procédure bi yëpp nga dem ñibbi vice de forme d'accord alors donc kon euh, effectivement il a droit euh, à une assistance médicale aussi ci euh, garde à vue boobu noonu. Mhm. donc euh, quarante huit boobu noonu bu ko dépassé en principe en principe. Mhm. Euh, bu dee procureur bi recevoir na ko ba jël ay kii. Mhm. y a pas de souci mais d'habitude on fait de manière illégale wala. non textuel le retour de parquet ce que je ne lui pas parce que c'est très difficile mhm. et lu ñu war a lu ñu war a la ci suñu système judiciaire mais bon euh, voilà bu bu bu paree ci loolu noonu day jàkkaarloo ak procureur. d'accord mais ñu ci bëri dañu jàpp nii li ñu doon ragal la mu di euh, chasse aux sorcières ñenn ci ay euh, mbokkam wala sax ay naataangoom loolu la ñu wax ni dañ leen a rek mais amul réew mee ñàkk xaalis rek ñeneen ñi ñoo ko sàcc. kenn kenn kenn condamné wul kenn ñoom jarul ku bi da nga bàyyi buum. waxuñu ne Lat Diop moo def amul benn rapport bu ko bu ko épinglé ak yooyu non doucement ñenn ci ay mbokkam doucement rapport épinglé la taxul yaa def rapport bañ la épinglé taxul ne def actuellement il en garde à vue il il n'est même pas en détention provisoire alors yow waxuñ la laa def rek ngay jóg ne def ma bu euh, procureur les enquêteurs reproché ko un certain nombre de faits. Mhm. les charges de la preuve. incombent au demandeur ci procédure civile la. mais si aussi le défendeur pense qu'il est innocent il prouve que ni euh, il y a aucune euh, culpabilité. Mhm. aussi simple que kenn sasewul kenn. Mhm. kenn xulloowul ak kenn. la Diop bu deful dara day ñibbiwaat këram tranquillement keneen ak keneen bu ñu deful dara dañuy ñibbiwaat seen kër. tranquillement ñu déglu maître El Hadj ñaar dërëm ci xaalis yi yonaat loolu mooy détournement ñeewuñ ko IGE wala Cour des comptes wala OFNAC dafa ni da nga fexe ba yonaat perte ñaar dërëm donc da ngaa détourné xaalisam da ngaa lekk xaalis yonaat kenn ma su sa posé question bi par contre wane na ci interrogatoire bi ni moom bi mu ñëwee fekk na yonaat dañ ko doon nax di ko ci la chiffre d'affaires bi cent milliards trois cent milliards ci bu jàppanteel muy Mohamed Dieng. première bet première bet xbet ak première bet ñaari mbir yi. dafa fekk muy fay vingt millions par mois LONASE bi mu ñëwee mu fexe ba Mohamed Dieng di fay woon xbet. première bet. nekk si benn. wan mooy président moo nekk si benn rek. président mooy wan. non. moo ne wan ne ma. boobu mooy A. donc wan nekk si benn. wala président nekk si benn benn la. Uh-huh. Mohamed Dieng. Euh, bi bi kii ñëwee bi bi lan ñëwee. vingt millions la doon fay redevance LONASE. lan du ñuy créé benn pour xool li ñuy gagné parce que loolu daal daawul xam lu gars yi gagné. Lonase moom moo le monopole ci affaire carte xaalis ak jeu de hasard. bu ko may Lonase mu xam li gars yi gagné